bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi wa man wala maada yanbagi ala man darasa nawaqid lan moo yell nag ci ki nga xamante ne jàng na yile mbir ya nga xamante ne dafay yàq doomu adama dafay daldi yell war ci jullit mu daldi moytandiku mbir yooyu le mu tiit tamit mbir yi ci boppam waaye tamit mu daldi moytandikuloo keneen ku dul moom mbir yile amma nag atte nit ñi ci mbir yi loolu la war ci moom mooy mu daldi dellu ci boroom xam-xam yu mag yi ak tribunaux ya nga xamante ne du ñuy atte sharia qaala taala yàlla mu ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina ra'ufun rahim fa in tawallaw faqul xasbiya allahu laa ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ci laaya bu màgg bile dafa géeñ wax ni dikkal na leen kat yonent bu bàyyeekoo seeni xeet doomu aadama du malaaka lu tiis la ci moom lépp lu jafe ci yéen ku xër la tamit ngir ngeen daldi gindeeku waaye tamit ku am ñeewante la ak yërmande ci ñu gëm ñi boo leen du mooyoo nag wan gannaaw waxal ni doyloo naa yàlla ma nga xamante amul ku ñi jaamu ci dëgg ku dul moom waaye tamit ci yàlla moomu moom laay wakkirlu moom laay wéer sama ay mbir yépp ci biir ak biti waaye borom boobu tamit moom mooy borom arsh bu màgg bi